interview laa ko mën a tuddee. benn si interview. Mhm. boo defoon que ni da nga feebaroon feebar boo xam te ne xalaatoo woon ni sax di di nga dund ba heure bii. waaw feebar ban feebar la lan ban feebar moo la sonaloon ba tax ñu génne woon sa xel ci ci. feebaru feebaru kii la feebaru feebaru xol la. Ah. je suis né avec une anomalie je suis né avec un cœur plus grand plus gros que que que ne devrait avoir un enfant de mon âge j'étais un bébé mais sama xol dafa réyoon quoi alors Euh, médecin bi ma doon suivre cardiologue bi ma doon suivre euh, mu wax pronostiqué euh, j'avais un pronostic vital très très faible mu ne sama papa écoute kii bu dundee ba am dix ans c'est un miracle waaw bu dundee ba am dix ans c'est un miracle maintenant yàlla mën na lu nekk mais Euh, je ne je vous dis je vous préviens ngeen bañ a def seen xel ci moom trop trop trop trop parce que du romb fukki atam alors sam papa nag euh, loolu salaat beaucoup affecté moo tax sam papa man ak moom on a des liens très très très euh, spéciaux waaw il m'a il m'a pris sous son aile du doon nangu kenn door ma du doon nangu kenn xas ma du doon nangu kenn def ma lu ma metti Donc voilà, et euh, c'est ainsi que nous sommes nous avons évolué ensemble, on s'est battu ensemble avec ma mère, ma famille, ñoom ñëpp ku nekk ñëpp comprendre ma ci loolu xam nga je me suis battu de temps en temps affaire bi daf ma doon daaneel de temps en temps et cetera et cetera alors je me souviens en 90 Parcelles Assainies unité 22 euh, ma ne sama papa ma feebar feebar bi affaire bi bi may mujjee daaneel sama yaram yëpp dafa néewi woon quoi ba boo jëlee sa baaraam boo dugalee nii sa mun sa baaraam mun na disparaître tellement dama néewi woon complètement ma ñëw ma toog fekk sama papa toog ma ne ko papa je ne tomberai plus jamais malade sama papa ne ma tu m promets sama papa xool ma ne ma tu me promets ma ko oui je te promets que je ne tomberai plus jamais malade mu ne ma d'accord quelques jours lañ ci teg ma tane et grâce à Dieu boobu ba tey depuis quatre-vingt-dix ba tey bon awma j'ai pas de j'ai de sérieux problème de santé grâce à Dieu waaw ñëwatul daan bon de temps en temps da ngay de de temps en temps tem nga sentir ay picotement yu ndaw affaire demee noonu loolu c'est humain c'est c'est des qui arrivent mais wax dëgg yàlla boobu ba léegi grâce à Dieu daaneelatuma comme ni ma daan daanelee à l'époque maintenant man euh, gëmuma miracle parce que miracle mooy li mënul am am man yàlla laa man lu xel daj am na parce que boo amul woon yàlla du ñu créer suñu xel pour suñu xel di daj loolu noonu lu xel daj loo xamante ni yaakaar nga ni mënul am ci àdduna bi ak ni mu toll yëpp ak ni yàlla toll ak li yàlla mën loolu ci wedd weddi yàlla la bokk sax ci weddi yàlla la bokk sax donc du coup ma yàlla parce yàlla